Alors, peut-on dire, du coup, professeur, qu'il y a autant d'œuvres d'art que de personnes qui l'ont admiré on pourra dire oui, ça, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a des règles, il y a des canons qu'on enseigne dans les écoles d'art pour décrypter le sens d'un message. Mais il va de soi, comme euh, vous dites, qu'au fond, il est presque rigoureusement impossible d'assigner à une œuvre d'art un sens profond. booru juróom-ñetti waxtu ci guddi ci la accident bu garaaw bi daal di am nag ba ngay dugg Kébémer oto minicar moo daanu ba jaaxaan nag. ñu bëri am ci ay gaañu gaañu chauffeur bi nga xam ne moom moo dem dawal mu ngi jéem a expliquer lan moo waral bi la accident. mbir mi de nañ doon dox di daw ba saa saa direction bi ñu per contrôle direction bi tourné rond quoi mënatuñ ko Dakar lañ jógee war nañ doon julli ji war nañoo perdre contrôle carrément. mais kenn ñàkku ci bakkan. ñàkk ci bakkan yàlla na si yàlla def mu yam foofu quoi. Euh, Baara Baara Gaye moi ce que je dis c'est clair c'est pas d'accord naag d'accordum la dama ne li mu li mu wax nii il c'est une opportunité Baara Gaye le PDS derrière lui. C'est via lui il va communiquer pour tout le parti démocratique sénégalais. léegi on raconte n'importe parce que li am solo ba am solo bu fekkee ni lii c'est avéré que dañ juum dañ ko tooñ. non non pas mais bu dee rek bu dee lii dafa dafa avéré que gars yi dañu juum. non dañ ko non attends bu fekkee dañ ko juum loo xam ne nekk ko. buba mais dañ ko tooñ. buba mu am opportunité. buba buba buba c'était pas cela. c'était pas cela mais mais s'il maître s'il te plaît c'était pas cela c'était pas cela la question de départ mais maître yàgg nañu dégg yàgg nañu dégg Sénégal non yàgg nañu terminé dégg Sénégal vous débordez vous débordez maître s'il te plaît vous débordez ërtël bi jéggi na dayo jéggi dayo boo xamante ni waxuma sax ñun ñi nga xamante ni ñun la ñu jàpp singil yi singi eh, singil yi tëj biñ ma sama cas euh, bale naa bu yàgg mais mënu ma ko fàttee mënu ma fàtte kaawu Karim Wade mënu ma fàtte kaawu Aïda Ndiong lan lay def ci kaso ba léegi ah mënu ma fàtte kaaw Aziz Diop mënu ma fàtte kaawu Samuel saar bërki demb comme laa di le professeur Macky Macky Macky xam nga lu seen erreur boobu ñoom Macky ñoo nekkoon nekk ñoom ay booy wër paa bi muy seen baay yàlla sépp benn booy ci ñoom muy président de la république. nanguñ ko jox cër bi mu mérité. te yàllaa ko jox cër boobu. mais alors alors léegi cër boobu nag. Mm. koo ko bëgg a wala nga soxor ci. Mm. da ngay def ay njaaxu tëj. yor mu rëcc Pape nga baal ma dafa la buuba mën na la sa ndigg buuba dafa la bëgg a yàlla ko yëkkati rek président très bien mu neex la mu naqari la moo lay seet merci maître léegi buuba dafa la waa PDS très bien buuba dafa lay tontu ils sont aigris waa mais maître maître s'il te plaît mais maître Macky Macky Macky maître s'il te plaît maître tu vas juste répondre après nga ñëwaat à genoux to à genoux yaa ngi yëngal doo yëngal sama ménage à genoux à genoux à genoux góor gi moo bari doole góor gi góor li ñu intéressé mooy en tout cas man Bara li ma intéressé wax naa ko Ablaye mu dégg ko le comité directeur xam nañu ci sama position Euh, wax naa ko suma frère Karim Wade aussi mu dégg ko li ñu intéressé mooy ñu ngi jiñ ay milliards yor na ñoom yoruñu nañu préparer suñu bopp pour que 2017 waaw ñu mën fi jëlee Macky Sall. d'accord loolu mooy sama loolu mooy sama stratégie. man aw ma beneen aw ma beneen stratégie aw ma beneen lu may xalaat leneen lu may xalaat ci àddina ci lu dul lu dul loolu. waaw yéen yéen politique yéen politique yi yéen politique yi yéen politique yi fan ngeen ñu teg ñun askan wi. voilà loolu mooy sama question en réalité. man man meluma ne Bouba. Bouba moom moom politicien la. Hmm. mooy politiciens yi nga politiciens yi nga xam ni. fu ñu toll ñu ngi politique. yow man du ma man du ma yaay mais léegi. xam nga léegi ki ñu oo. xëy na policiers yi yàkkamte nañu def nañ cuune yëpp cuune. Mm. waaye police institution la. def na erreur l'erreur est humaine. man mi tey nañ ma pari police. Sénégal xëy na dama violé jigéen. elle a 54 ans mais on parie beaucoup plus. Bourignon, entouré de ses enfants et petits-enfants, rumine des pensées sombres, aussi sombres que le minuscule de pièces où elle habite. parce que Vraiment, je ne prépare pas la tabaski. Il n'y personne pour m'aider. Où pourrais-je donc trouver un mouton Le chef de quartier m'aide quelquefois. Je lui prends une partie des mets que je lui prépare pour amener à la maison. Je suis vraiment fatiguée. Il y a beaucoup d'approches. consistant à mettre en rapport une œuvre d'art avec le vécu social de l'artiste. Il y a par exemple l'approche ethnique et culturelle de l'artiste. Il peut même y avoir l'approche développée par Freud, que vous avez bien, l'approche psychanalytique, montrant que l'œuvre d'art n'est qu'un lieu de sublimation. Ça veut dire quoi Que l'œuvre d'art est un lieu par lequel l'artiste détourne de manière déguisée des choses qui relèvent véritablement de ko dalee jàpp leen fii ak deux ans Macky Sall ndeket li mu waxoon Sénégal dina émerger dëgg la xamul lu tax li ko dalee Parcelles Assainies fa la pétrole ba feeñee kon ñoom Modou Lo déménager dem ba unité 10 am na pétrole unité 11 am na pétrole mais unité 7 ak 6 4 amuñu pétrole mu tëb ba unité 4 am pétrole Cambérène am pétrole am essence mu ñëw ba coté Yoff am pétrole jàdd ñëw ba suñu buntu kër man fi ma dëkk am na pétrole continuer ba suñu dëkk am na pétrole suñu waa kër fu ñu nekk fi ñu taxaw foofu am na pétrole sama mbokk fi ñu dëkk am na pétrole pétrole baa ngi wër ñëw ba Pikine gedd moo tax ma ne yaa weex yaa aay ne farax nga te foor nga yaa weex ne yaa aay ne farax nga te foor nga yaa weex ne yaa aay